am njaal beenam day ba nga xam ni jóg na nee na lay poste lay lay ak bëgg-bëggam mooy topp yàlla ki lépp loo xam ni xeetu topp la liggéey yonent bi xeetu liggéey bu mu bëgg loolee itam fekk na fii mu nekk ci fii nekk ci teew mi lam ci bëgg boroomam xamal ko ni ko day ah li nga bëgg day la la koy may wéetaay lay doon woo xam ne bii danga koy danga koy am boo xam ne kenn doo doo doo ko bokk kenn danaa la boole nag ak ñoo xam ne nii du ngeen tàggoo muy muy muy sama ñooñ muy ahlu badrin mais ba mu ne cëpp mu ngi dem شيخنا لعلمتني وعلى شكنا أخير الله خير الله ونكبر سيد فلنغنينا مولم لو لي أولينا خمين يجيتو كتنا دفع فوق لمبقى ak ak li ñu ko li ñu ko yen am ci ñoo xam ne nii lañ leen mu attun ko léegi mu dal koy wax ni ko kon nag ah, naa la jaarale foo xam ne fii boo fa jaaree li nga bëgg di ko am te di nga am sama ndimbal itam daal koy booleeg ñooñu ba mu ne cëpp di dem ñëpp jaaxle lool ndax lëndëm gi ak jaaxle gi mu xamal ko ni ko du dara da ngay jël loo xam ne lii rek loolu rek la ko mën a may <coughs> loolu mooy sabab dem ci géej gi